association bi ak ñu fekk ci orphelinat bi di jiitu suñu Fallou Ndiaye ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di sant bu baax di sant bu baax ñu fi ñu àndal ñëpp ñu jàpp si liggéey bi ñi nga xam ne boobu ba léegi seen loxo jugul si liggéey bi ku mel ne suñu Asmaan soxna Acca soxna Aysatu ak ñoom suñu Adama Gueye ñoom Assane ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñoom suñu Saliou Dieng ñoo bañ a wax di lum di jur mais képp ki nga xam ne association bi bañ ko créé wuutagu sax cinq mois mais gis nañ seen pëseef seen seen seen taxawaay ñu ngi sant bu baax a baax a baax di ñaan balaa ñu indi fa ay conteneur conteneur bàkk Cheikhul Khadim di sant suñu Fallou Ndiaye bu baax a baax gis nañ liggéey bi nga xam ne xale xale koy liggéey ak yàlla ngay liggéeyal dañuy ñaanal dañ koy ñaanal daal li si bëgg rek yala na ko Serigne Touba defal ba ñu indi ay cont conteneur bàkk Cheikhul Khadim di sant ñëpp nag damaa bañ a ba di jun mais ñu ngi sant ñëpp ñoom soxna Anta ñu fi teew ñëpp ñu ngi leen di sant association bi ñu tudd association d'aide aux enfants Tassourou du Sikhar ñu ngi si jublu mooy ñu ngi dimbali xale yi nekk si orphelinat yi ak yi nekk si daara yi ak xale yi nga xam ne waruñu mën a dugg école amuñu ay këddu ay këddu juddu amuñu ay moyens pour mën a dugg école yooyu yëpp si lañ ëmb waaye incha allah dañuy njëkk si dañuy dañuy def général généraliser rek orphelinat yi ak daara yi ak yëpp yi nga xam ne rek mën nañ koo mën a soxla ñu jàppale leen si bu baax a baax a baax te yàlla rek tax bi mooy suñu première sortie di ñaan yàlla rek mu jëm si kanam ba ñu dund dindi ay conteneur et conteneur te yàlla rek a tax. tey jii nag mooy ñëw fii ci euh, Aliya Daaru Xadim ci orphelinat Soxna Jaara Buso am fekk mbokk yi mbokk yi yëpp euh, ci association bi ci njiital soxna maam Awa Mbàkke yëpp ñu fi teew yëpp soxna Atta euh, suñu ak ñi fi nekkul seen as monteur ñëpp ak ñi si seen loxo dugg dugg ñëpp ñoo ngi jaar tey jii nag mu ngi fi ci ndigalu seen monsieur Ahmadou Mbacké Souhaïbou ñu ànd feeg ci turu waa association wa Tazawudu Sixaar ñëw fii indi suñu ndimbal ci orphelinat Soxna Jaaratullaahi eh, Soxna Jaaratullaahi Bousso eh, di di sant yi fi teew yëpp di gëna a soññ euh, mbokk yi nga xamante ne euh, duggugun ci association bi ñu leen ci gën a soññ ñi si dugg ba noppi ñoo leen ci gën a soññ seen pësteef gis nañ yéene ji ak pësteef bi yëpp waaye ñoo leen ci gën a soññ di sant bu baax a baax ci jëf ji ngeen di feeñal wax dëgg yàlla comme ni ko soxna maa waxee biñ ko biñ ko biñ ko tàmbalee yàggul waaye wax dëgg yàlla yéene ji feeñ na bu baax a baax feeñ ci seen alal ak seen jot ak seen lépp def ngeen ko ñoo ngi sant bu baax a baax di ñaan yàlla Euh, yéen yi gën a yéen yi yéen yi ñu gën koo mottali mu gën a yaatu ñu fi indi ay conteneurs yi conteneurs ndax ndax lii bu ko bu ko soxna Maawa defee bu ko soxna Maawa defee xel day dal c'est suñu son bi suñu son bi daru ñurul ko woon yar jàngale suñu toll nii tamit ñoo koy gërëm di ko sant ndax wax dëgg yàlla ñun bi euh, ñu am juróom-ñaari at ci daaram lan nekk ba ba ba ñu fi jógee daanaka lu bari leen fa xam moom lañ fa xamee itam yéenam tamit euh, wax dëgg yàlla kawe nañ yor ubbi na ay école ubbi na lii nii moo ko taxawal kon ñoo koy ñaanal mu am ci ngërëmal Cheikhul Khadim euh, cat ban mu gën a mu gën a kawe njort daal barke Cheikhul Khadim waa daara euh, soxna jaara ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar ñun waa association d'aide aux enfants Tassawu du Sahar ñoo ñëw fii tey di suñu barkeelu rek ci daara ji ànd ak suñu présidente soxna ma aw Mbàkke ak euh, suñu man ma nekk seen trésorière bi soxna Acaasow di wax na ci turu ñi ñëwul ñëpp te bokk ci association bi waaw amoon nañu yéene ñu waaye bëgg a defee rek di ñaan yàlla su beneen yoone ah ñu gën a am loo xaman lu ëpp lii lu ñu indi te mboolo tamit ëpp lii waaw dañu ñëwoon rek tey di ziar di nuyoo si rek di sàkkuwaale ñaan te di ñaan yàlla sunu borom rek eh, jëf yi weesu fi te di ñaanal tamit sunu nekk ci daara ji tamit yàlla sunu borom barkeel leen ba lépp lu ñu wut ci daara ji yàlla sunu borom defal leen ko ñu nuyu di ziar nag ñu jiite daara ji waa di yemale foofu sunuy kàddu rek ginnaaw bi ñu nuyu ñëpp ziar ñëpp eh, gërëm ñëpp tey nag dañ fay ñëwoon en tant que association d'aide aux enfants ki nga xam ne mooy soxna Maawa di doom ci suñ Cheikh Ahmadou Mbacké ak bàjjen maam xari tey nga xam ne moo jiite association bi ànd ak mboolem ñu àndal ñëw def suñ premier sorti fii ci Aliya kër maam jaara Bousso ci kër soxna maam jaara Bousso yi nga xam ne ay orphelin ñoo fi nekk xale yoo xam ne ni ñàkk nañ seeni waajur peut-être xale yoo xam ne nii xamuñ seeni waajur peut-être taalibe bu baax ndongo lu baax am initiative wala bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñoo tabaxal barab bi muy Serigne Fallou Ndiaye bu ngeen gisee nag ñu teew fii dañuy rek xeeñtu euh, tànku di xeeñtu tànku mag ñi tànku kilifa yi ndax kenn ku ne xam ne Serigne Cheikh bu yàlla na yàlla yokk ay leeram xam-xam ak daara rek lala moom moo ko taxoon a tey nag ñuy waajal poroxaan doomu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké doomu soxna maam Xari Mbacké ànd ak njaboot yi ay magam ak rakkam ñuy waajal màggalu poroxaan mu ñëw fii indi fi ay ay ay ay barkeeloom kon lépp dañ koy delloowaat ci ay loxoom ñu ko tegee ci loxoom teg ko ci loxo euh, soxna soxna maam Xarim Mbàkke ndax démb ba léegi mi ngi ànd ñun ci liggéey bi lii nag bu ñu ko defee dañ koy def pour soññ mbokk taalibe yi nga xam ne bëgg nañ lu baax waaye peut-être xam ne barab bi am na ndax barab bi ñu bëri xamuñ ne am na wala amul mais lii nag dafa bokk ci campagne de médiatisation bi nga xam ne képp koo xam ne nii pare nga pour dimbale orphelin yi képp koo xam ne nii pare nga pour dimbale euh, ndonga daara yi képp koo xam ne nii pare nga pour dimbale xale yi nga xam ne amuñ ay capacité wala amuñ euh, capacité pour dem école ak ñun nag pare nañ pour taalal leen loxo ñu jàpp ci liggéey bi kon daal loolu mooy wax ji di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom léegi ñuy def ñi ci bokk ak ñu ci bokkul yëpp ñaan nañ ci tombe ak ngërëmu Sëriñ Tuubaa te am nañ ci yaakaar bu baax ndax buñ déparé sëñ Cheikh sëñ Cheikh Mbacke sëñ sëñ Cheikh Mbacke yebal doomam sëñ Modou ànd ci ñun ñu jógee kër sëñ Chouaïbou bu léegi xewlu xewlu fa déparé fa ñëw fii ci barab bi kon xel dal na dal bu baax a baax a baax. am mbégte loolu la ci dalal suñu mbokk yi nga xam ne tey ci orphelinat Kër Maam Diarra di jël nuyoo ko teg ci loxo yi sëñ moom sëñ Cheikh Ahmadou mi xam ne mën nañu mooy kilifa jotaay bi mu ànd ak nag euh, magam ji soxna maam aw mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi xam ne ñoo di seet si daara ji wala association aide aux ñu am mbégte loola ci daal leen fii ci orphelinat Kër Maam Jaara muy bërëb bi nga xam ne fi ñu taxawoo jirim mooy xale yi xam ne dañoo judd rek seen yaay génn ay liir toll ci nàmp te féréguñ wala xam ne dañoo judd ñàkk seen seen seen seen seen seen seen ñaari yëpp far far ñoo xam ne maanaam ñàkk na seen waaye ñàkk na seen baay boole ci wala ñi xam ne seen yaay dafa judd bi ñuy judd seen yaay dafa fekk moom wéral si ba mënta nàmpal doomam ñooñu ñëpp ñoo ñoo tax ñu sànc kër gi bañ ko sàncee léegi mu dem fukki at ak benn ci ndigal Cheikh Sidi Makhtar mi nga xam ne taw jotaay seen xarit yooyu jamono itte yëpp ne weesu mooy taxaw doomu aadama rek li nga xam ne mooy këru liggéey bi sëñ Tuubaa sëñ bi xam mooy liggéey yàlla ci jaamu yàlla yi moo tax ñu liggéey rek ndax ku ne xam ne na rawatina na baayoo liir bu judd yaayam génn addi su jooyal séntu ween sa yaay ween mag ba sax kooku disul kenn ku may lislaam ko war a taxaw rawatina ci ëttub Seexul Xaadim ñu dupp yëkkatee ñu duppee ko Soxna Jaara mi nga xam ne mooy ndey yor yor mu dëgg-dëgg nag julluwaayu liggéey bi ginnaaw taxawu nit ñi mooy feeñal liggéey bi sëñ Tuubaa bi nga xam dara ndax suñ tubaa moo ñaan suñu borom ne ko waltu basir bi la yataamaa jami'an ansihim bi abaahum ku la xiin yàlla nag ma def may mbigum jirim yëpp jirim bu ma xam na fàtte ñàkkoon ñàkk waajur ba tax mu dem ci yeneen loxo wala mu ñàkk ay waajur ba def tax mu ñàkk bakkanam wala mën naa dem sama ñàkk pas-pas ndax nit moom boomu ay waajur ñàkk ñàkk na cëslaay kon yitte ju kawe ji moo taxoon ñu nañ ci yëkkati ñu liggéey Sëriñ ñëwee kanam a ko moom liggéey Sëriñ Tuubaa a rawatina buntu kër bi nga bàyyi ko ndax suñu mënoo ko junj sànq surtout suñu sooy bu su dee def def lu mel ni du jaaxal kenn waaye surtout suñu laaj doon def rawatina tout tànk yi ci wàllu ak yar waaye ñi néew doole ñi xam ne ñoo tàggu seen sago bu doon kër seen blaat dama wax saa yu suñu la masa gees buy tëju ma ñu métti daal mooy ñu ñàkk ñàkk seen sago daal kon ku bàyyi ko ci diggante ñaari soo taxal mel kenn du na guléet kon soxna dañuy am biitu baax di la ñaanal ñaan yàlla suñu borom dëgëral la te kàttan la ba liggéey bi nga yóbbu ko fa ak faaga kawe la sant nag sa tur association bi yëpp ñu profité occasion bi di wax rek ni euh, liggéey bi Sëñ Tuubaa la biñ ko yëkkatee bi yaakaar ni kenn a ko jël yóbbu ci kaw te pourtant ñoom dañu leen jël doon yóbbu ci kaw bi fi doog a ñëw kon loolu cant yàlla suñu borom ndax juluwaay bi mooy suñu lañ yaree nàmpal leen bañ fer buñu tollee ci jàng leen jàng alxuraan jàng leen diine yar leen ci lislaam xam nañ tam seen adduna ndax bu jógee ci alxuraan yi dañu ubbi ay école formation professionnelle mais dañu ubbi école éducation ay jàngale franco arabe xam seen diina xam seen adduna man dox seen bopp bu ëllëgee loolu moo jubbaay fii nag tey waa Touba ñoo fi ëpp mais Sénégal ba Sénégal amul benn raison bu nit doom nekkut ba mu tënk sax am na xale yoo xam ne fi ñu fi ñu bàyyi bàyyi ko ndax nag suñu Touba moo am tawfeex Sénégal ba Sénégal jeex moo ci njëkk am pépinière islamique 2012 bi ñu ko yëkkati Sénégal ba Sénégal jeex suñu Touba moo ko njëkk am moo tax ak cant yàlla suñu borom la kon daal ñu leen gërëm baax xam naa lu ñoo waxee wax ji du jeex waaye daal suñu xel seet na baax li ngeen fi indi tam réy na lool ndax soxna si da cee sonn waaw damay woo guddi ak bëccëg lu leen soxla du laaj bu ñëw fii xam ne fi fi mu jëm xam na ko ndax puus du fi meew du fi te buñ ko a yor seen ëpp nañ 30 personnes yoo xam ne kër gi ci lañ sukkandiku ñoom fii suñu biir tamit ëpp na millions